Big Rap clashante gis nañ fi buune rabgal seen mujjee na clowné def lu kenn deful dina jafe maa ngi def yëfu mag bàyyi yëfu guune xamuma saral te duma xoof gandi lépp wulaate dëkk yoof bindi bu xóot mel ni pelaay bi ndekkoon bu maaleykum salaam maaleykum salaam naata delloo ziar bu wér a wér wér waaye léegi balaa ñuy commencé xoolal dañ def dara xam naa bi nga ñëw si yoon nuyoo nga ba tas quoi lii moo gën a óor xaaral fi mu nekk nii comme que jamono ji dafa yëngu fi mu nii mu ngi noonu c'est ngi noonu j'espère que ñëpp xam nañ li ñu bëgg wax lan la quoi <laughs> asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Yoff asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum Sénégal partout dans le monde

partout euh, mu don doomu yoof juddoo yoof mage yof don suñu fierté ñun ñëpp nga ñu gën ko si euh, trou Paco Brise tay Paco Brise lañ fi dalal fas yéene waxtaan ak moom si début carrièream ba tay ji fuñu tollu xamna début carrière sax li ci si du bari parce que tamit comme ni ma lay ko waxe rek il a déjà confirmé waaw xam naa si actualité la ñuy gën a wax ko si la ñuy gën a appuyer Paco nuyu nañu la. waaw salaamaaleykum maa ngi lay fay. naata maa ngi lay fay di la remercier encore une fois ci invitation bi. de rien de di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan Yoff TV. Mm-hmm. ci plus particulièrement tey si suñu plateau jotaay hip hop. yes waaw di rafetlu jotaay bi. Mm-hmm. di wax ne tey sax daanaka du nekk jotaay hip hop mais jotaay ndaw ñi lay nekk. jotaay ndaw ñi parce que actuellement daanaka mën nañ laal en général actualité. waaw ñëpp xam nañ li nga xamante ne actuellement moo fi nekk. n'empêche dinañ waxaale ci carrière. Mm-hmm. waxaale si fait divers incha allah. dëgg la dëgg la li nga wax yëpp dëgg la ñu lay jaajëfal bu baax Paco di leen fàttali ni euh, seen partenaire suñu partenaire leader mooy G5 euh, Universal Production moom mooy partenaire u euh, émission bi ak Mr Ran Style gis ngeen tey fi mu ma génnee tey ku ma gis duma xàmmee parce que dama bëgg lu rouge waa ndinaan la <laughs> waa ndinaan mu rosé muy DR1 Sorano Grand Théâtre man nañ wax ni réussite totale la yëpp tey ñetti projet yooyu ban impact la am sa carrière ba fi ñu toll nii tey. bon je peux dire que premièrement sama premier projet bi ma ko génnewee c' était en 2018 mën naa ne boobu j' un peu méconnu si mm. public bi xamaguñ ma woon bu baax en fait. dëgg la mën naa ne yoof kese moo nekkoon base bi. à mhm. quatre vingt pour yi ci mhm. réseaux sociaux yi ñeneen ñi nga xamante ne ñooy déglu la. après ñu génnee projet bi peut li nga xamante ne moo gën a may impact peut être yi xam Paco Briz mooy le même jour bi mu génnee xam naa bu ma ko nekkee di wax répétition peut lay nekk. dëgg la xamoon nañ ñu defoon premier jour bi. Mhm. Sorano guichet fermé jaay bracelet yi mujj écoulé ko le même jour. après Galsen Hip Hop Awards 2018 ñoo ma nominé woon ñu meilleur projet peut moo ma may peut être benn reconnaissance ci côté territoire après grand théâtre bi juste pour la confirmation pour euh, wax gars que ni du woon dañ ko def juste pour def ko pour nit yi xam ñu mais am nañ yeneen challenge yeneen rêve yu ñu war a réaliser. Mhm. donc yàlla sutural ñu aussi ñu defaat guichet fermé grand théâtre donc tay pour revenir si sa question donc loolu mhm. may na ma reconnaissance. Mhm. ak respect ak euh, considération bu am doole ci territoire national bi yëpp yëpp yëpp. dëgg la dëgg la loolu leeral te gars gis nañ ko quoi waaw euh, pourquoi pas tay jii pako ak liñ fi wax yëpp. Euh, gars yi nangul nañ la loolu quoi pourquoi pourquoi pas tey nga liggéenti noo tege benn benn label fii yoof pour pour pour mën a jàppale euh, boy yi fi nekk quoi parce que gis nga ne boy yi bari nañ fa trop trop trop te amuñu yenn moyens yi quoi balaa ñuy dem studio dañuy sonn pourquoi pas tey yow nga liggéenti benn label boo xam ne tey di nga ko fi tegal boy yi nga xam ne tey loolu dootul doon seen problème quoi. waaw loolu daanaka suñu su suñu ay projet la nekk depuis depuis le début. Mm-hmm. pour souligner que ni euh, boo gisee pour mhm. wax gars yi peut être ñi xamul peut être fi may nekk di liggéey si Pikine laay liggéeyee jéegi raay donc damay jóge fii dem ba ginnaaw raay pour enregistrer uh-huh. euh, donc pour wax gars yi que ne suñu projet la ba léegi daanaka ñu ngi si à 60 pour cent je peux dire pour réaliser donc mhm. loolu ku nekk da ngay da ngay bëgg di ñibbi si pour dimbali say rakk dimbali say frère peut yi nga xamante ne tey yàlla def na ñoom ñoo la jiitu sax si affaire yi mais affaire yi mu ngi mu ngi nice mais a mën a gën a nice donc ñu ngi si jusque dañ xamante ne nii Euh, jeexaguñ suñu contrat ak jégiraay dañ fa signé album okay. album bi presque daanaka à 80 pour cent pare na donc moom mooy li nga xamante ni moom mooy suñu euh, contrat jégiraay album contrat la boo xamante ne sax du album kese mais am nañ ay ambition pour euh, am suñu ay affaire bopp képp koo xamante ne nii peut être yaa ngi liggéey si yëfu jàmbur bëgg nga am sa yëfu bopp. dëgg la te fierté lay nekk buñ mm. mais mm-hmm. ko jàppee. parce di xalaat di bind loolu yëfu grand mm-hmm. frère la avant avant Paco boo daan bind son man dama daan gis da daan def classe masqué da nga daan classe mais da nga ko daan masqué quoi man xam naa li may wax mm-hmm. euh, léegi tey la moo tax nga bàyyi euh, loolu lépp tey la moo tax nga bàyyi ko parce que gis nga tey game bi ni mu demee la moo tax doo jékki-jékki sax xoos kenn nii xam nga pour pour pour créer tuuti embouteillage quoi. <laughs> waaw comme ni nga waxee rek au début mm-hmm. euh, bi ñu soo commencé xam nga am benn fougue de jeunesse quoi. te mm-hmm. temps yooyu c'était ay 2015 je pense ay 2016 17. si. 2018 euh, sax je peux dire am na ay son yoo xamante ne ego trip la parfois nga xaw mel ni ku lancé pic mais man samay pic à chaque fois da doon indirect nekkul damay viser benn nit ma wax ak moom. Mhm. dama doon généraliser parce que rap Galsen la su may wax. du ma wax ak kenn en fait kenn nekkul rap galsen ñëpp ñu ñooy rap galsen lu leer lu leer du coup su ma visé kenn man je me dis que ni day mel ni yow kooku dafa nekk benn affaire bu rëy si sa kanam dafa nekk benn obstacle boo xam te ne il faut nga laal ko pour nga baare ko quoi voilà juste nekkuma di gis benn obstacle moo tax du ma du ma fixé si kenn ok bon bu ma gisee talent dama koy respecté mhm. mais nga gis talent ba pare top si gannaawam di ko tàggale loolu soxor leen duru quoi dëgg la dëgg la moo tax man awma préférence su nekk di top si nit di wax ak moom man je préfère may avancer nit yi di def comme man di solo comme man di rap comme man di ma sànni ça me fait avancer en fait. ok ah je préfère avancer nit yi di wax si man que may wax si kenn quoi. C'est vrai c'est vrai waaw lu leer lu leer nga teg quoi mais yow euh, gis nañ ne fan yi tamit euh, génn nga benn son bu bu bu remarquable quoi bu bu bu ñu tuddee euh, li ma metti sama dëkk ñi wax ñu réalisateur mu bàyyil ñu xel préparal ñu suñu clip mais mais mais fi mu nekk nii pako ñun ñëpp on est d' accord que ne Dakar def nga fi confirmation.

Euh, benn projet kese lañ fi indi. nekkagul sax album. si benn EP la. te def mhm. nañ si macha allah tournée nationale. Mhm. malgré que defuñu ko si ay stade mais def nañ ko si ay showcase. Mhm. ay boîte yi nga xamante ñoo nekk un peu partout si territoire national bi ñu génnee projet DR 1.0 def nañ tournée nationale. pas laal 11 xaw ma 14 régions yëpp mais je pense def nañ 7 ok voilà defoon nañ set donc avec les moyens du bord pas de sponsor pas de diable ñun waa Team Breeze di leen nuyu encore une fois ñoo ko dajale. si jël suñu auto dem def tournée nationale. Mhm. donc ben projet là, genre euh, gisaguma woon en fait ku ñëw rek def peut-être ben projet def tournée. mais mhm. les mu ngi am quoi. Euh, pour préciser gars yi nga lim que ñu ngi def donc pour pour wax leen ni ñoom liggéey nañ fi ay deux projets. nous mhm. fi jiit liggéey nañ fi album soo ko def tournée nationale c'est album. du moins si ay projet nous ñu def mu album ñu def def ay stade donc suñu album bu génnee dañuy dem def ay ay stade. c'est forcé incha allah loolu c'est avenir quoi. c'est promis quoi. amul benn pour gars yi ñoo gën a yaakam di si biti sax. amul ragal bon nañ xaar lool bu pare espérons que ne dina doon réussite quoi. incha allah ñun loolu lañ ñaan particulièrement man mii toog loolu laay ñaan quoi. Euh, rési bu clip bi pare muy li ma métti sama dëkk bu disponible rek nga may ñu ko ñu xool ko. meti sa mă tăc Vulgarite mă fi păs Le mă meti sa mă tăc Le mă meti sa mă tăc Le mă meti sa mă tăc Mediocrite mai repăs Mă le mă meti sa mă tăc Nici opul la mâine că ne Le mă meti sa mă tăc Mă le mă meti sa mă tăc Yeah Lima Mackey, summer death. benn ëpp doole dëgg di fecc ak dëgg lañ fu laala jox ko gën borom xam-xam du ci fës caaxaankat yi ñoore bës surtout rëngi dee na kocc seen porno lépp di dugg waral léegi gone yàqu ndax lu bon rek a fës ci génie perte temps ci réseaux sociaux la gënal am xam-xamu génie li ñu diine jàngal ci alal ju lew lañ tey la ci PMI rappeur sax bu saagawul ndey ci soobam bu génnee du def it sama dëkk ay mag yu baax fi dëdd mais ndaw yaa ngi rêvé américain bi xoolul lu jëmale kanam réew fa tu ay fait divers les bi yenn góor ci gën di gën di bëri an sunuy baaxi dem lu tax sama dëkk ñuy rek bàyyi fa miskin yi amul ay ndëkki reer te ma metti sama dëkk médiocrité mooy def buzz Ni ma metti sama dëkk vulgarité moo fi fës li ma metti sama dëkk Les moments qui sont mon top Les moments qui sont mon top Médiocrité moi réponse Man les moments qui sont mon top Ñi ci ëpp la ma ñoo gën a fës Les moments qui sont mon top les moments qui sont mon top Ñaari kori teg ñaari tabaski Tari xala wala commission la faute ak kii nañu dégg milliards yi ñu man ak kii maam Senghor Diouf Wade ba si ñoom mag kii indiscipline ba ci tali bi yenn accident yi da ko wutal alibi béykat yaa ngi jooy nañu gestu ba àll bi fan la Sénégal toll ci mbiru talibé gouvernement ku ko ci te jiite nga mi tooy chômage baa ngi gën di yokk gën na yokk tooy amoo xaalis du la ci yenn hôpitaux yi inauguré terre at romb chapiteaux yi ah. créé bi boo amul biir internet saaru virtuel nga lépp ci base mot bu rangu manqué respect waa Jamra kon est-ce que jotul ñu xooli soirée ba ñu fa paas sutura bi amatul sa yëpp tas envoyé sa photo taat yi fépp ba pare di kaas contre race suñuy ressources yi amul transparence fi lépp lëndëm dafa timis paradis fiscaux yi dañu komis soppi suñu diine def ko mode Juli wote ku julli nga ne ko bu la fatte ci ñaan tel nga ñaan te ya gëna i ñaan artiste internationaux yi am sponsor ñi fi dëkk bu ñu xewlee du ñu gis tous kuy walu wa sa ba do la or bi feeñ mu jëna ñu ba do la ñata at ani ba do la jox la sacrifice bi jur na ak ba la ñaka esprit patriotique kenn di wax gi mari saña mujj dik violence aux femmes am gor ñu sa dik insécurité bari da ngay mujj dik Sénégal égal kat bu tok ci mine d'or am pétrole gaz di pécor les sama dog. médiocrité témoin des buzz. Les mamans vulgarité mon Li Les mamans qui les mamans qui Les mamans qui se des buzz. les mamans qui tête, ni pour la les n'y pose. Les mamans qui les mamans qui fa yàggul yaakaar ci xar fa xuufa pétaw njabar suul lañ ci tër ba ak xuura ustaas bu waxul ci njaaloo duñ ko fuula ngir mën ci langaamu jaral na leen dëpp waxu rasuula sama dëkk fees solo ki na fekk bés bu nee ñooy waxtaane rafet xoola politicien yu mën na fen du ñu rey ci télé gi suba ngoona Zeyda Zaman wote yonant si di jël ko def ko coowa man li ma metti ñi xam lépp fi bari te joxuñ leen noppa kay ma wax la nigga lima ma metti sama dëkk mbir yi ñëpp teg nañ ci bët kenn waxul luñ mën a dégg caaxaan leen di mën a dégg nit yi waroon delloo si xelu jaam yi ñooy soppi waxu yàlla ngir neex Ousmane Ba teg Samba ma Demba nit yu baax yaa ngi fi lu tax jamono tey xooluñ ci Demba damn lima ma metti sama dëkk ne jokkile mooy def buzz li ma sama dëkk vulgarité moo fi buzz li ma metti sama dëkk momenti som atak Li momenti som atak Mediocrite mai de fost Man li momenti som atak Nici opul la mâine gără fost Li momenti som lima metti sama dëkk Pago son bi nga nga bëgg ci wax lan ban message nga bëggoon euh, véhiculer au juste quoi si son bi. bon son bi comme comme titre bi rek li muy li muy wax li ma metti sama dëkk yëpp laa bëggoon laa bëggoon dajale pour def ko si benn son. parce que à un moment donné je pense qu'il était temps ñu ñu xool li nga xamante ne ni moom mooy ñor population bi pour ñu wax ko. si donc yàgg nañ def ay son yàgg nañ woo population bi ñu ñuy fekk si yàgg nañ def lu nekk gars yi di dajale fu nekk. di uh-huh. feesal ay salle di def ay affaire donc il était temps. si tey ma jàpp comme ku nekk li nga xam te ne moo nekk sa xol ma waxal la ko. donc doon naa toog fu nekk nit di di déplorer ay affaire donc c'était juste pour euh, benn cri de cœur la. pour mm-hmm. dénoncer li nga xam te ni doxul si Sénégal donc dama dajale lu bëri daje naa si côté religion bi dajale na ci côté société bi dajale na ci santé bi. Mhm. dajale na ci tali bi autoroute dajale na ci taalibe yi ci gaay wote yonenti affaire de rango ainsi de suite. ay fait divers yu dajale Sénégal lo xam tane peut être mën de me résumer résumé. Mhm. Sénégal ci six minutes peut être looloon pour waxal ñi nga xamante nous ñoom ñooy s'envoyer tay pour représenter Sénégal pour wax affaire yi nga ça ne va pas en fait. ok ok bu ma la déggee dëgg parce que dama gis son son wi donne six minutes donc yow li la metti Sénégal bari na quoi. bu ma déggee dëgg mooy dafa am ay ay ay laisser yu bari yoo xamante ne nii gars yi mënuñ si mënuñ si jog ba léegi quoi yow nga bëgg génn sa xol pour pour pour gars yi dégg si quoi. effectivement voilà ok noonu daal la demee quoi mu ngi noonu di leen fàttali nii ku bëgg oote mën na oote si 77 717 23 59 mu ngi noonu di leen fàttali ni euh, suñu leader euh, officiel partenaire officiel pardon euh, GFA Universal Production la. ak euh, Mr Style. ñu jël ki ci ligne bi euh, s'il vous plaît salaamaaleykum waaleykum salaam tonton naata man la mbaacu laay sëf sëf Eva Laya king le mu motax ma wote man oui deugal ko sama ñu ngi jaar sama jabar la deugal boro ma ngi delu ziar ma lay ziar nako yaang ci jambo. ma ngi sant bu baax andax contente bu amul fenn ah fi contente be contentement trop ça di la yàlla yàlla li nga optee li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla may. amiin amiin amiin eh, gëm naa ne da koy am parce que tu es simple. incha allah. fàtte kenn ma lay gën di ñaax aussi bu la dara jay. Mm-hmm. ba tax nga changé. Mm-hmm. tu es impectueux cool. Mm-hmm. en plus tu es le meilleur de trois générations yi fi nekk pour rab gaal seen mën naa wax loolu man. <laughs> merci beaucoup. <laughs> yàlla amiin merci beaucoup kontaan naa trop. jërëjëf merci merci beaucoup Eva Laye kontaan nañ et Paco ma seetaan la si benn télé benn télé de la place quoi ñu laaj la benn question benn question bu complexe sax ñu ne la yow tey tey jii kan nga xam ne moom moo téye game bi rab rap seen tey jii si si si si euh, game bi quoi yow sans gêne sans hésiter nga ne dip quoi. man sur le coup ça m'a surpris quoi parce que comme on question Rolling Stone, parce que question pièce, là, quoi mais la mo waral loolu la mo la ba ba nga ba nga avoué quoi wax lolo genre avoué ça parce que je me rappelle l'émission, émissions qui font le buzz. oui c'était pas peut-être la question dañ euh, actuellement à l'instant. Mhm. kan nga jàpp ne actuellement je suis fi nekk di gën def ay uh-huh. moment où c'était la sortie de l'album de Dip je pense période donc c'était lui donc moom moo fi nekkoon un projet pour xam te bruit pardon Allo? jël Allo? Allo? Allô? allo allo oui allo Allo? Allô? allo hmm. waaw Allo? Pago s'il vous plaît ah juste c'était question hmm. dañ actuellement yow kan nga Allo? ne actuellement Allo? nekk si actualité lañ ma laaj quoi uh, si rap garsen ki nga xamantene mo fi nek nek di job quoi voilà donc moment bobu pardon pardon pardon pabo allô allô allo salam alaykum alaykoum salam de lo ziar nako sant yalla bu baax ah man la atumon allo yow ya, la man la atumon atumon eh, ok eh bayit naka mu gaay eh? sant yalla bu baax yéen nga am jàmm. alhamdulilah. waaw man dama bëggoon oote parce que dama am benn booy bu bëgg a laajte benn question. ok. ok ñu ngi koy déglu. daa mel ni ku benn waaw dafa mel ni daw na de. non oh, it crédit bariwul quoi. it crédit da ko ne quoi léegi léegi égal ma si si si si si réponse boobu. ma waaw pour ñëwaat ñu mm-hmm. wax si vite fait balaa gars yi di wootewaat. waaw benn émission bu tudd kii font ils font le buzz. dañ ma laaj si période boobu noonu kan nga gis ne si rap galsen actuellement moom moo fi nekk di def buzz par exemple moom moo fi nekk actuellement. donc c'était le moment bi album di bi génnee woon quoi. aussi période bob clash yi sax bare si baree gu fi won carrément. mané ko mhm. actuellement à l' instant T on peut dire que Dip actuellement mo fi nek di def actualité parce que mo def album bu nek di def carton. donc c'était ça sans sans gêne dama koy wax quoi. parce que soxarewu ma muy def lu nice. si c'était kenen ko xamantene mo fi nek mhm. di ko def j'allais énumérer touram dama koy citer. c' nata vrai album bu top dama naan naata mo fi nek di def lu nice. c'était juste ça en fait. oui pardon jël ki si ligne bi allô allô allo oui. maaleykum salaam. kontaan naa trop ci émission bi. yow la kan soxna si. ala Kia. Kia. Mhm. ñoo la gën a kontaan. yow léegi laa doon seetaan damaa gis sa sorti rek ma ne xaaral ma jàpp yow mbooloo. c'est vrai. Mm-hmm. te kontaan nañ trop ci yaa ngi gën a xam. mu lay béggee bu wees yow moom amuñu sa fay daal ndax da ngay romb xale yi ci mbedd bi mel ni ay mag da ngay taxaw xaar ñoom pako dafa mel ni yaa moom loolu de ci nit ñi dëgg la da nga am respect ci nit moom merci beaucoup kontaan naa trop ah kontaan nañ merci kontaan naa si appel bi aussi ak si seede yi kontaan naa trop merci beaucoup ah ok merci beaucoup jaajëf merci beaucoup Paco pour pour ñu revenir si loolu xam naa dañ fay xaw a taxaw tuuti mm. vu que euh, Reptyle Music ak Jéggi Raay am na fa ay éléments yoo xamante ne nii euh, du ñu jaaroo taal quoi yow nga nekk Jéggi Raay dib nekk Reptyle Music yow boo waxee loolu si télé ñëpp di la dégg est-ce que tey jii doo mënoo mënoo si am benn problème ak ak ak sa gars yi am amoo si ay gars yoo gisal ñuy changé kanam wala affaire demee noonu. non man de genre. Mhm. peut-être sax si yow laa déggee que ne peut-être am na ñoo xamante ne dañ nekk jéegi raaya ñi nekk mhm. reptile duñ duñ duñ jaaroo taal. Mhm. gisaguma ko fa en fait gisuma fa artiste bu nekk foofu boo xamante ne dafa am problème ku nekk reptile musique honnêtement en fait gisaguma kuy tok di wax lu bon ci artiste yi nek foofu noonu. dëgg la d'habitude duñ tax tok di ci watan dañuy job ci suñu job ñu concentré wu ci suñu flag moy suñu suñu drapeau bi nga xam mom lañu représenter moy label bi. gisuma kenn ku soxaree ben artiste bu nek foofu. ok ñom ñëpp dañ amuñu ben problème ak wa Reptile. dëgg la tey bu ma ñu laaj ma question bo ma lim turu dip dundu gis. c'est mm. parce que dafa nek def lu rafet. dafa nek instant T bi ñu ma laaj question. album moom moo fi nekkoon di def buzz j'étais aw ma woon aw ma woon pour soxoree ko quoi. c'est vrai c'est vrai c'est <laughs> sama réponse c'était c'était visible moom moo fi nekkoon di. def lu comprendre naa la comprendre naa la xam nga xam nga boo gisee ma que euh, man connaisseur de rap la quoi yow même chose bari na ay gars yu ñu seetaan yoo xam ne tey yow li nga xam si rap wala man li ma xam si rap ñoom loolu la ñu xam quoi donc question boobu ñoom. di dina leen dina leen jaaxal quoi donc il fallait que tey jii ma toog fii laaj la pour yow nga nga leeral leen naka la demee quoi. waaw gis nga boo gisee gars yi raw ñu Sénégal boo gisee mu am tuuti retard genre détail yu mel ni yu gars yi di bàyyi xel la. parce que à chaque fois dañuy jàpp ne ñaari artistes yi waruñu waruñu waruñu filante. ok yaa ngi comprendre. Euh, Dip Dip bi ma koy xam je pense que gars yi xamaguñ ko sax. dëgg la Dip pour présiser ñoo amandoo bag max moom. dégg naa la ñoo bokkoon école donc c'est sama xarit la quoi tu malgré que rab bi moo ñu boole actuellement du ma toog di communiquer si moom lu bari. dëgg la dëgg la malgré que loolu day surprendre ñu bëri nekkuma sax di xëccu ne sama lii la wala sama laa. parce que fi mu nekk nii. Mm. tey si ñun si yoon boobu lañ nekk pour nekk li mu nekk di ko représenter. grand Yoff vis vis Sénégal tey dañuy am pour. représenté vis-à-vis Sénégal suñu yoof gi ñu am tey. Mm. mais bu nekkee di def lu nice duñ duñ duñ duñ di ko wax. yoon mooy yoon ku nekk di def tamit duñ soxor di ko wax. Mm-hmm. ku nekk def lu nice la à la base c'est le Sénégal qui gagne. du ennemi man du sa du ennemi keneen peut-être ku ma amal problème moom la concerné man hmm. amuñu problème donc bu ma gisee ku ma amal problème sax pour être honnête ku ma amal problème bu nekkee di def lu nice bu doon ku ma amal problème la ñu ne ma dafa nekk di def lu nice kan nga gis kooku laay lim quoi. parce que du ma parce que moo fi nekk quoi honnêtement voilà en fait. c'est vrai c'est vrai c'est vrai merci merci d'avoir répondu euh, ñu jël ñu jël kii si ligne bi allo. allo allo oui. allo. yow la. Maymuna Sow eh Maymuna. ci la ne. maa ngi cool. namu naa la. fii la ëppee yow. waa di rafetlu émission bi émission bi neex na trop. merci. waa di la ñaanal yàlla te biir bon courage. amiin amiin. ba Pape aussi ñu ngi koy bigal bu baax baax. merci beaucoup. waaw moom suñu sant la ñu leen di déglu ñaar ñëpp. Ya ok ya, ya. merci kontaan naa bu baax. allez au revoir. merci Maimouna kontaan nañ kontaan nañ du leen fàttali ne numéro bi 77 la 717 23 59 pour ku bëgg a dugg mën nga oote si numéro boobu. Pago dama gis ne eh, bàyyi jël ki si ligne bi jaar des na tuuti da nga may teel ligne bi quoi <laughs> allo. waaw maa ngi fi rek. ça bien. sant yàlla bu baax. alhamdulilah. man de benn question laa bëggoon poser Paco Brice quoi. waaw bismillah. mooy par rapport ak euh, lu mu métti sama dëkk. Uh-huh. Euh, man est-ce que mënul woon bàyyi ba coow kii bi jàll quoi coow corona bi affaire yooyu noonu mu doog koo lancé affaire ok ok. moo nekkoon sama question quoi. am nga ci droit. waaw ñu ngi lay remercier encore une fois ci woote bi ak question bi. Mhm. waaw pour tontu sa sa sa question son bi boo dégloué, nekk na loo xamante ne du loo xamante luy xaar la. Mhm. parce que ay faits divers la bu doon son bon boo xamante ne son son ben affaire bien déterminée la loo beaucoup ne mhm. waxul ci société à l'instant T. parce que boo dégloo son bi li ma ci wax première minute ba sixième minute mon équipe di daw actuellement. donc nekkul son buy xaar bu ma bu doon dama koy xaarloo donc du ma ko parce que mhm. day nekk lu obsolète lu obsolète mooy loo xamante ni dafa passé ba pare nga koy waxaat quoi. Mhm. il fallait ma wax ci Sénégal si gombi bi metti instant bii nii nii nii ma koy wax. Mhm. du coup bi ñu defee son bi booy seet affaire Zeda Zaman xam nga yàggul. affaire de Rangu yàggul. juste que yàlla dafa def bi ma paree son bi ba ñu tourné clip. Uh-huh. juste bi may soog a tourné clip bi si la affaire coronavirus bi ñëw. avant ñuy pare montage on a essayé lancer message wane ces ay image Sénégal face au virus wane gars def ben message bo xamante ne day mussel gars ci coronavirus bi donc bu son bi paré gul won dama ci bolé coronavirus bi parce que ben fil conducteur la bo xamante ne dama don jël note ci lepp lu xew Sénégal ma noté ko ba instant bobu bëri na li noté son bi da don gudd ma ne naa ko génne donc jazz 1 la mhm. instant bi inshallah amna am jazz 2 ok euh, après corona bi. je mhm. pense leneen ak leneen dina xew wax nañu mën nañu waxaale ci coronavirus bi. mën nañu mhm. waxaale ak leneen. donc je pense que tey son bu nekk ci société bi la. donc je mhm. pense que coronavirus bi ça fait partie ci société bi. lancé dañ ah. message boo xamante aussi ci biir son bi boo dégloo di nga xam ne ça correspond ak feebar bi donc c'était ça. c'est vrai c'est vrai ba pare gis na euh, bi son bi jeexee. nga bind benn message si affaire coronavirus bi effectivement effectivement pour wax gars yi rek yàlla nañ yàlla musal si feebar hmm. bi ci olof loolu laa bind si si si voilà c' était ça mais son boo xamante ne mënul woon xaar la dafa ñoroon pour génn parce que li nga si wax yëpp boo ko xaaree joratu hmm. woon nga koy génnee parce que du son buy xaar li nga si doon wax la gars e, yi doon dund tey il fallait nga e génnee ko léegi lu leer donc boo ko waxuloon ba solution am nekk na son boo xamante ne solution am na ba pare donc da nga koy wax pour ñi nga xamante e, ne ñoom nga koy wax ñu trouver solution si problème yi ngay dénoncé quoi dëgg la dëgg la dëgg la mais nag problème parce que man kii posé question boobu. dama ko dama ko fàttee laaj tuuram. waaw euh, ma ne. waaw. sama dernière question mooy que ñoom ñoom rappeurs yi lan la ñu programme pour sensibiliser nit ñi par rapport ak maladie bi affaire yooyu noonu. Mhm. aussi. voilà question boobu je pense que sans sax maa ngi siy wax ak Badou je mm-hmm. pense que cause mu ngi fiy toog waa Timbris jotoon nañ def ay affaires mm-hmm. euh, malgré que nekkuñu doon ko médiatiser. Mm-hmm. jot nañ def ay affaires yoo xamante c'était entre nous. def nañ ay don, dem nañ ci ay quelques affaires yoo xamante ni, nii suñu koñ la quelques talibés yoo xamante ni, nii suñu contribution la ñu ñëw def ko donc jëluñu média pour wax les ne kaay def dañu ñëw wax leen tey nii di informer ñu ngi doon gis maire Yoff euh, di remercier encore une fois Abdoulaye Diouf Sarr ci combat bi mu nekk di mhm. moom la bi nga xamante ne tey ci ministère am la leen di rejoindre ci seen campagne ñu ngi leen di gis aussi ñu nekk di def campagne bu am doole di leen wax ne Team Breeze yëpp ñu ngi seen gannaaw. Yoff Game ñu ngi seen gannaaw ci campagne bi nga xamante moom ngeen di def ñun jotoon nañ def suñu affaire à mhm. côté mais pas médiatisé dañ ko def juste pour ñun ñoo génnee suñu miette def li ñuy def ñu at toog quoi Oke dégg la. ok papa merci beaucoup yaakaar naa leer naa mais mais yow la kan man la bàcc bàcc bàcc maa bàcc xam nga xam nga naa la porte plainte parce que sama question nga jël quoi ah ok maa ngi xaaral sa convocation foofu ah xam na ma saa peut être xam nga gisante bu ñëwee fii dem ko doon envoyé du genre sur WhatsApp ak dëgg la dëgg la dëgg la boo xamante ne je le suis de trop aussi ok lu muy def dama koy use affaire yooyu noonu et je l'encourage quoi vraiment. c'est merci merci merci merci merci merci merci Bathie jaajëf am na solo Paco euh, ñun ñëpp waa Yoff dañu gis ne bu concert amee yow boo joué yoo pare nit ñi dañuy dem ñibbi parce que tey question boobu foofu mu ñëw parce que daf ñu sonal quoi. boo joué par ñi ñibbi benn mële xuloo nañ si man ak moom. Mhm. njëw mhm. moo xuloo nañ si man ak moom dama wax ba après dama mujjee mar quoi. Mhm. donc gis nga tey waa Yoff fi ñu toll si yow quoi yow tey boo amee euh, benn message booy jàllale par rapport ak loolu nga nga felesu ko rek pour ñu mën a avancer pour bu ñu amatee concert yow boo yéegee ba wàcc concert bi bañ yàqu quoi. nga dimbali ma si nga wax leen tuuti rek ñu lu ñu mën a dégg quoi. <laughs> bon je pense que loolu yàgg naa si communiquer sax. Mhm. même bu dul plateau tey bi. Mhm. yàgg naa ñëw si concert u jàmbur joué mu wóor ma ne bu ma wàccee après peut-être day nekk répétition nit yi di ñibbi dañuy ñibbi. damay mhm. taxaw foofu ma wax ne bu kenn dem. je pense que yàgg naa joxe euh, lancé yàgg naa lancé message boobu kenn dem. te lu tere dañuy ñibbi donc je pense que répétition rek lay nekk donc du si man pour man.

Mhm. désormais bu ma jouer tay bu len ñibi c'est juste du won man. Mhm. du man damay gis ne du man kese yalla moom moo koy def. donc yalla moom mu def lol tay meuna def ba benen jour nga jouer tay nit ñi sax duñu yuxu yuuxu. lu leer meuna def tay ngay jouer ken du la tatchu loolu dëgg mën a def nga joué nit ñi toog keneen joué nit yi ñibbi. dëgg la dëgg ku nekk day def temps am. dëgg la du ma ci encouragé kenn du ma ci blâmer kenn mais dama koy bàyyi naturellement ak yàlla. di leen remercier encore une fois ci cofeel beeg yëpp. du loo mhm. xamante ne objectif la mais. Mhm. yàlla moom mooy dogal quoi. dëgg la te bu ma sañoon dañuy joué. Mhm. samay frère samay ñëpp joué concert bi neex ñu ñëpp ñu ñibbee. waaw mooy yoon quoi je pense que loolu moom moo gën a nice mais du obligation. aussi du loo xamante ne waruma ci communiquer. mais lépp ci loxoy yàlla laa koy teg parce que yàlla moo dogal loolu quoi. dëgg la dëgg la dëgg la je suis d'accord avec toi Euh, di leen fàttali ne 77 la 717 5 23 59 allo. allo DJ Nalla. oui. waaw ma lay ziar bu baax. delloo ziar. waaw euh, ma la du. yow la. du jën du jën. eh du. waaw ah, naka mu. nice. di la ziar bu baax. sant yàlla di delloo ziar. waaw di ziar yu togo bu baax a baax. Eh, ñu ngi lay ziar du. waaw di la ziar bu baax di kontaan si yéen bu baax. merci beaucoup voilà DJ di la ñaanal rek émission bi yàlla na a jëm kanam incha allah. amiin amiin amiin gannaaw bu kóol nga merci amoo benn problème. jaajëf jaajëf. waaw di la ñaanal mu jëw si kan si kaw si kanam rek incha allah. amiin amiin. ah yow tamit di la ñaanal rek yow incha allah. Mhm. yàlla gën a def affaire yi avancé bu baax a baax. allah incha allah. jërëjëf ok si yéen. jërëjëf merci beaucoup. merci kontaan nañ. Euh, di la jaara téel ma bi ba si kanam ah. pour ñu mëna a avancer quoi Paco da nga def Sorano mu don réussite totale ma ngi koy wax bi ñuy parce que te bu fessé tamit man man man na wax né wayof Yoff tax mu fess nga def grand théâtre mu fess del te man na wax né wayof Yoff tax mu fess si même grand théâtre bi beaucoup d'artistes dañuy jouer man mo limal ñuy jouer sax mais dama gis né deux voire trois artistes yo ñoo jouer mu indi cholo bari même buñ la ko waxul man interpel nañ ma ba tay parce que boy xam nga buñ ma gisee dañuy joytul len naxari ma bëggoon pour nga leeral len ak lool nu mu démé la mo tax loolu quoi. waaw comme ni nga wax rek Sorano je pense moy won sama premier concert bu mag boo xamante ne peut être ma ngi ko def mu nekk benn une première si yof quoi lo xam ne ni si territoire national bi yëpp. si yof di génn dem Sorano donc c'était obligatoirement obligatoirement. Mhm. yof waa yëpp bokku ko muy ki nga xamante son muy ki on était plus de 3 son minutes. ma mhm. invité ñep pour wax on était mhm. tellement nombreux sur scène. c'est juste pour euh, revenir sur question historique bi mhm. quoi xam nga début. si y avait plus de won nañ trop du coup grand théâtre bi bi koy pour clôturer sama album dafa mhm. nekk dama doon jouer ak live band. ok du woon concert comme Sorano. Uh-huh. dafa amoon premier partie am deuxième partie boo xamante ne en live band la woon ak ay musiciens. si ñoo ko doon jouer te particularité bi. c'était uh-huh. juste pour invité yi ñi nga xamante ne ñoo jouer sama deuxième partie mooy. ñi nga xamante ne si année boobu génnee nañ projet. ok je pense que communiqué naa ko ci télé Sénégal yi ma jaar yëpp. ok communiqué naa ko aussi fii Yoff Mbolo. c'est vrai donc particularité bi la différence c'était pour génne ñi nga xamante ne nii am nañ projet territoire national bi. Mm-hmm. c'était ça peut-être ay quelques ben exceptions wala je sais pas régie bi waa Jéegiraay nu ñu ko défé je sais pas je pense que ben artiste mo fa joué xawma ñaar ñu amul projet. Mhm. mais bo limé artiste yi fa jaar yépp ku si nekk année bobu da nga génnee projet. dañ defoon ben genre euh ben genre chapiteau fofu dama mhm. wo képp ki nga xamanténi invité na la mané la dama bëgg yow projet bi nga génnee nga indi stand fofu nga indi bâche. Mhm. nga ñëw nga jaay sa projet parce que concept grand théâtre bi loolu ñi nga xamanténi dañ génnee ay projet ñëpp ñom ñoo waral bis bi ok donc c'était était ça lolo waral invité yi wul won pour souligner aussi que ni dafa am luñu ñu sorano euh, on était venu pour jouer suñu son yi mais malheureusement jouer wuñu 50% pour cent yi. Mhm. temps bi dafa gaton trop Il y avait trop d'invités. ok voilà je pense que tay sama frère yi nga xamante ne ñoo ngi yof peut être tay ñi nga ñi ma invité wul won yëpp pour ñu jouer tay je pense que Benz mën na seede. Mhm. yóbbul nañ la enveloppe d'invitation pour nga ñëw tok en tant qu'invité invité. nga assister si feetu yof je pense que bu si kenn meree rek. genre mhm. ai donné benn incompris ci côté. c'est vrai c'est vrai ak benn peut-être ñàkk a mat ak fàtte démb ak fàtte concept bi nga xamante ne nii peut-être moom la ñuy defee suñu événement mhm. donc bu ma sañoon ñëpp joué mais lépp lépp lépp lépp lépp tamit xajul mhm. si biir cin li donc il fallait ñu segg mhm. xool ñi nga xamante ne peut-être génnee nañ projet Yoff ñu privilégier, leen ñi nga xamante ne génnee nañ projet si Sénégal muy ñi nga xamante ne samay nit lañ ñooñu laa invité woon ñu ñëw jaay seen projet bi ñu génne woon loolu laa communiqué woon si sama portfolio donc loolu lañ appliqué woon quoi ok ok ok dëgg la comme li ma la wax rek c'est normal ñu ñëwaat si loolu parce que euh, booy xool boobu ba léegi nii même boo fi euh, ñëwee muy yoof mbooloo euh, question yooyu mën na am ba jotuñu la ko laaj quoi. Mm-hmm. parce que tamit euh, comme li ma la wax rek man damay romb si mbedd ñu di ma ko joytu quoi. ma ne ma leen invité loolu naa la ko laaj pour ñoom ñu leer seen bopp. Mm-hmm. mais j'espère que après ak ñoom ñëpp amoo si kenn ak problème wala benn boo romb la di la. non sentiruma sax peut nit jàppal na ma dara wala. Mm-hmm. romb nga ma nuyoo ma parce que sama concert ñëw invité wu ma la pour nga jouer. Mhm. je pense que Yoff euh, deux artistes yi ñoo fi jouer. waaw je pense bien donc c' était juste pour wan gars yi que ne instant bi il est temps ñu yëkkati drapeau Yoff Sénégal gépp gis ko ok c'était pas comme Sorano mu nekk yoof kese joué yoof kese kese. il était temps dem nañ ba mag am nañ ben beut bo xamantene ne nañ ñu mhm. il était temps qualité il était temps ñi génnee projet ñëw mhm. poser sen projet ci territoire national bu Sénégal. dem ci benen level quoi. Benen level lo en fait. Mhm. nekkatul won ben affaire pour. wane yof yof yof c'est vrai que yof mo wara lepp mais buñ démé bay représenter yoof Sénégal dañ wara gis qualité bu am doole ñi génnee projet yoof Mhm. ñu présenter seen projet par rapport ak ñi nga xam te ne ñoo génnee yeneen projet aussi si beneen côté muy Grand Yoff muy ñeneen ñi ma invité ñëpp ñu génnee projet c'était juste pour représenter Yoff en fait c'est vrai voilà donc ñi ñu seetaan je crois que loolu leer na parce que euh, question bi euh, arrangé na leen arrangé na Paco Brice quoi parce que tey jii ku mu leer woon sa bopp tey boo ko waxee dina leer si boppam donc noonu la ma doon demee quoi il fallait que question bi ñëwaat quoi mais lu tax euh, Paco man li ma mënul comprendre moy yof ni mu toll ñep ak li nekk si artistes yëpp depuis 3 ans 4 ans même tête yi ngay dégg ñoo nekk ci kaw yow loolu la moo sa gis-gis quoi même tête ngay dégg bu foor 3 3 artistes ba 4 wala 2 3 4. bon yof bari na ay artistes trop sax. Mhm. peut-être tay 3 gars yi ngay dégg le le le Sénégal yi dégg. si mais ça veut pas dire que 3 yoy nonu ñoo fi dakh rap lu leer voilà ça veut pas dire que ñun ñi ñi dégg ñoo fi man dé mhm. amna ñu ñu dakh rap foofu ñoo xamante peut-être sax ñëwaguñu non je veux dire pardon je veux dire. Hmm. c'est quoi le problème ba trois têtes ngay pendant trois ans quatre ans. C'est le problème c'est quoi. genre xam nga man dama am habitude ba poser question historique après répondre ok donc fi may historique ça ne hmm. ça veut pas dire que ñun ñi ngay dégg. nous hmm. fi daax la chance et opportunité pour franchir. nga mhm. saisir sa opportunité boobu peut-être mhm. tey ak man ak keneen ak keneen yàlla suñu heure moo jot tey Sénégal xamuñu. dëgg la loolu la mais ñi di ñëw peut-être ak structuration boo xamante ne nii peut-être ñi leen wër am nañ ko peut-être amuñu label boo xamante ne nii benn enregistrement da leen di gratos tey fi tey man su may def son damay nelaw yeewu dem jéegi raay ma prise gratuitement parce que dama fa am contrat. si keneen ak keneen si ñi ngay ñi ngay dégg tey benn BMJ du dem reptile di fay. Mhm. day dem foofu enregistrer son gratuitement keneen ak keneen ku fi am label peut-être chance boobu la leen ëppale mais ça veut pas dire que ñoo fi man dëgg la dëgg opportunité la yàlla may la mais ñi fi nekk si biti du moins ñi nekk si biir yoo fi di rap te dàq rap sax ñun ñi fi nekk bari na mais peut-être seen heure moo jotagul. ok ok lu jot yomb di leen wax que ne. nekkuñu fi tax di nganda-ngandalu ke ne ñun la de dëgg la dañuy waccel suñu bop chaque jour à chaque fois ñom ñu ngi leen di xalaat te xamni tawta dañuy ñëw suñu mission day jall yenen boy ñoo ñëw di nek comme ñun taxaway biñ am ni tay ñu ko représenter yof c'est vrai di leen encourager bu baax di leen wax ni yoon bi gudduna mais mm-hmm. ñun sax xaajaguñu ag fen donc buñu gis buñu gis ni ñu defee ne réussir nañ defaguñ dara metti na trop mais yombul yomb na liggéey talent kessé tamit taxul nga dem mais ak liggéey bu am doole bu metté metté metti quoi la deugal la mais ak ak ak yenen ténor yi fi nek la moy la moy sa relation ak ñom waaw man moom ñëpp samay grand lañ je pense que euh, tey jii ñu bëri boo bu ma demee ba xam leen. Mhm. grâce à peut-être sama frère Daour ak grâce à yow. Mhm. moo tax ma xam ñu bëri fii nii muy Sadis Squad. Mhm. Ndiga Fatal ainsi de suite bari na ñi nga xam te dama leen doon dem di seetaan j' j'étais petit. xale laa woon je pense que sama mag Daour mu doon manager waa Sadis Squad. je me rappelle si la côtoyante ak ñu bëri ba yow si laa la xamee yàggam yéen ànd. sama premier sama premier single. du ma ko mës a fàtte maa ngi ko joué si sa si sa initiative bi nga doon def muy batal bi. waaw je me rappelle jury laa woon sax. Mhm. nga may ma opportunité ma ñëw nekk jury te aw ma son. par respect dëgg la du ma ko mës a fàtte donc voilà. sama premier son brise attitude maa ngi ko joué si sa si sa plateforme boobu noonu. si la nit yi di soog a xam ne maa ngi rap. donc loolu c'est à saluer di la si remercier du ma ko mës a fàtte sama àdduna. lu leer lu leer mhm. loolu rek loolu la fet fait. relation bu nice la am ak ñoom ñu si bëri dañ may woo di ma encouragé. Mm-hmm. bu ma defee erreur dañ may woo ne ma bul defati lii. doxalee mm-hmm. ko nii mën a leen ok naa ko def donc ñoom ñoo ma jiit si nekk bu lëndëm donc ñoo may wax fi may jaar quoi. dëgg la mais nga leen di conseillé booy booy yi nga xam ne dañu bëgg game bi si nekk si nekk si yoof loo leen di conseillé. waaw man moom mooy comme li may wax ñëpp ñi nga xamante ne peut-être ku may ne ma dama bëgg rap. Mm-hmm. sama premier mot mooy ndax yaa ngi jàng. merci. boo jàngul dama lay laaj ndax yaa ngi liggéey. boo liggéeyul ma ne la defal benn bi soit boo jàngul demal nga liggéey ndaxte son bi du dañ la koy may. lu leer xaalis bi ngay jël di ko enregistré yaa ko war a liggéey mu wóor na leen lii ñor na la ñax la. dëgg la donc man balaa may am fit di def ay son jàng naa ba am bac. Mm-hmm. gars yi nekkuma si rab yi depuis ay deux mille un wala genre. si mais période boobu maa ngi doon ñëw di côtoyer. di seetaan di forger wu di xam. Mm. cellule bi naka lay demee arbre bi na lay màggee am naa idée mm-hmm. si peut-être ni ñu koy defee mais nekku moon di pratiquer. mën naa ne si acteurs yi laa woon mais nekku moon pratiquant donc bi ma demee ba am sama bac peut-être si laa am liberté actuellement ñu bëri dañu yaakaar ne da nga fël rek génnee projet. Mm-hmm. mais loolu di miracle. du miracle quoi bu doon fël rek génne projet tàndale lay nekk te son yi peut être du nice la lu nekk si yow la loo yàgg forger mhm. pour ñëwaat sa question jeunes yi dama leen di wax que ne ku si nekk bu dee da ngay liggéey na nga gën a gëm sa liggéey mhm. bu dee da ngay jàng bu mu la teree nga jàng nga si accroché wu voilà musique passion la mhm. bu ko gars yi fàtte passion la à un moment donné dina dem ba ba ëpp doole li nga xamante ne si li nga concentré wu comme tey fi tey suñu kaa ñu bëri ñu bëri man tey fi tey dama dem ba amatuma temps def lu bëri dëgg la léegi si musique bi laa nekk di nekk si samay propre business yi nga xamante ne peut-être musique bi dina dugal dara nga def ko fu mu génneewaat nga mën si dimbal ay nit. ok te lépp si musique bi koy bàyyi di def leneen ça veut pas dire que di def musique parallèlement la ñuy defee yëpp. c'est vrai di leen leen wax ne yombul activité la passion la. rêve la te ku si nekk am nga rêve boo war a réaliser. ku si nekk am nga benn talent buy nelaw si yow mu wóor la benn jour nga ko mën a yee. ba mhm. passion boobu noonu nekk loo xamante ne comme la ci yow te c'est faisable gars yi amul xaadi mais nañ jàng nañ liggéey ku si nekk sa li ngay def na ko def. dëgg la continuer si musique bi un viendra dina fay ko. c'est vrai mais mënoo ma limal benn boy boo xam te ne bu nekk si Yoff tey jii mën na atteindre sa niveau yow ak BMJ. bon je peux du boy sax ah. peut-être boy la si ñenn ñi mais du boy man buñ man à chaque fois dama koy dama ko dama koy fil boy boobu noonu boy bu tudd Terror. Terror oui. c' est un grand artiste bu mag la. c' est vrai mais day bàyyi loxoom. Terror c' est <laughs> artiste la artiste complet. day bàyyi loxoom. artiste complet la. donc boo ma limalee boo ne ma benn ma lim benn boo ne ma cinq ma lim cinq mais Terror artiste la boo xamante ne dama ko fil trop. c' est vrai moom xam na loolu donc euh, di ko encouragé di ko wax ni. si mom la dess rek essence bi. parce que xeyna amna lu nek si mom sax lu nekul si ñun. Mm-hmm. non dinañ ko indi fi mu mu mu jakar jàkkaarloo. di wax ne ko mm-hmm. affaire yu rafet lay def di encourager encore une fois ci limuy def quoi. dëgg la dëgg la la di len fatali numéro bi muy 77 717 23 59 ku bëgg participer rek bo oté ci numéro bi ñu jël la allô ya allo ça va. ça va bien. ça va bien. alhamdulilah. waaw maa ma ci émission jotaay waaw émission jotaayu hip hop way Brise la bëggoon waaw. waaw mu ngi nii mu lay dégg. yeah salaamaaleykum. yeah Brise naka moom. oui sant yàlla bu wér. naka waa lépp jàmm. naa sant yàlla naka oui Baas la. ah yeah naka mu baax. oui naa ça va waay. yaa ngi si jàmm naka guddi bi. oui yaa ngi si jàmm alhamdulilah naka feebar bi yéen a ngi moytu rek. waaw waaw ñu ngi moytu bu baax. sant bi je pense mooy actualité rek ku nekk na toog fi mu war a toog mettre sa bopp en quarantaine jël. initiative yi nga xamante ne moom la ñu wax ñu def ko rek. si waaw loolu moom. allah. waaw mais am leen woote émission bi affaire bi. Mm-hmm. nga def ko échec yooyu pour ñu woote si niveau la. xam nga mun ñu dal quoi. récemment clip bi ma li ngay wax de. waaw man récemment clip bi ma mujjee génne sa bopp gis nañ suñ ok ok mm-hmm. jërëjëf. jërëjëf ah, merci beaucoup ah. ok merci merci beaucoup mais Pabbo tey euh, maag yow foog ñu laale pour nga wax ma yow la mooy sa secret. la mooy secret quoi ba nga ba nga jékki-jékki rek 4 ans 5 ans tey ñëpp di dégg Pabbo Briz parce que comme ni nga ko waxee sànq sa premier son da nga ñëw sama shop. indil ma benn son bu tuddee Briz attitude ma teg son bi déglu ko. après ay réglage teg quoi fan nga defee pri euh, prise bi xam nga ku joof sama patati patata après bàyyi la nga dem quoi ñu teg si tuuti ma commencé dégg Paco Briz tey mu ngi moo toj moo yàq concert bi tey moo toj concert bi tey nga ñëw egg si fii mais ni mu gaawee noonu xam nga euh, la lan mooy secret bi exact quoi ba nga ba nga sauter les étapes nii quoi pardon ñu jël kii ba pare. ok allo oui. oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam. lay ñaaña jéem. ma. ne ñaaña. waaw. wàññil télé bi tuuti rek. waaw. naka ça ñaaña. na ma naa la de. dégg nga ñaaña. yaa yaa baax rek. waaw waaw. dombaka ju am yar la deug la deug la ku bëgg mbokk hmm ku bëgg xalé deug la di ka ñaanal li mu sumba yalla jappal ko ci mu am lu bëgg dem nekk lu gën ci mom amin xamna li muy bëgg mom li muy def ñom sawar na ci te bëgg na te dafa deug ci mom deug la toujours papa bo bo ko bëggee laa xam mën nga dem kër gëtoo parce que saa yooyu ñëwee di ko seet ñu ne dem na équipe kon kooku li muy def ñor na c'est vrai c'est vrai ku bëgg yaayam bëgg papaam li muy def yëpp pour teral ay waajuram la. dëgg di ko jàppale bu baax yàlla dimbali ko ci ba mu weesu njortam. amiin ak mboolem jullit. amiin amiin amiin bu bu mu ko bàyyi. waaw incha allah. kooku bu wax toujours yoo xam jiital. Mhm. moom noonu la rek. Mhm. kontaan loolu. ok merci. jërëjëf merci beaucoup Niania. <laughs> nuyul ma nuyul ma bébé <laughs> merci beaucoup jërëjëf merci ñaaña kontaan nañ waa Paco ñu ngi woon si eh, secret bi quoi waaw bon man sax eh, benn question la waxum dene mun lu mu xam sax na laa koy daal si parce que à chaque fois dañ ne boo nekkee si pardon Paco ñu jël ki si ligne bi allo allo oui bien Hello. Hello, vous WhatsApp. man, oui. Hey, Mr. Weez. Yeah, What's up? Cool. Everything's okay? Eh, everything is okay, I see. <laughs> My ndax lépp mu ngi cool lépp mu cool. yaa mi ko mi ko déggee. yeah Alhamdulillah. <laughs> ji eh, Wiz. <laughs> My ngi seetaan émission bi nice, no? yeah jaajëf. Pape moom mënuma wax dama sama gaañ la mm-hmm. moo tax ma ne naa mm-hmm. a a wér. gis nañu lu ñuy yee boo kontaan nañ de. Mm-hmm. ñu ngi <laughs> jàpp taw bàyyi rek léppay baax la dina ñëw gis nañ xam nga plan boobu ni mu ko téye quoi waaye yooyu kontaan. man moo tax ma ma woote. Mm-hmm. xam nga def sama participation quoi. dëgg la mm-hmm. mais ñu lay def nga lu nice kontaan naa bu baax bro. waaw ñoo ngi gërëm merci merci Wiza. di fàttali ne moom mooy partenaire leader bu euh, émission yi muy euh, Wiz bu Jifa Universal Production mm-hmm. waaw mu ngi noonu moom ak Ran Style du ma ko faatee sama gain waaw <laughs> Wiz donc moom mm-hmm. peut-être gars yi bëri xam nañ ko sax euh, xam na ma depuis yàgg na man tam xam naa ko depuis yàgg na suñu événement jàpp na si bu baax mm-hmm. jëndal nañu ay bloc may nañu ay kaar. dëgg la voilà biñ gisulee kenn Wiz lañ gis donc di la remercier encore une fois bro merci beaucoup jaajëf Mr Wiz. waaw waaw merci beaucoup merci. jaajëf kontaan Wiz. dégg nañ la bu wér. waaw di leen fàttali ne rek Randstyle moom moo génn fii tey moom moo jox blanc bi quoi moo tax ma jël rouge bi sànni ko fële di leen jox numéro Randstyle ko bëggoo jot rek mooy 77 917 63 36 ku bëgg a jot Randstyle rek man nga woote si numéro boobu allo.

ko xamul tax. Uh-huh. am nañu fi jaar bi passé ñoom ngaa la tranquille xam nga dëkk bi kenn moomul kenn. Mm-hmm. yaa ngi bu baax. waaw. dañ koy ñaanal yàlla rek lu mu ragal yàlla ko yàlla dax quoi. parce que franchement ko am na jàmm na salaam mu ngi bëgg la loolu rek mooy tagu yokk quoi. Uh-huh. te mosul ñu mel la mel daal comme tànk. dëgg la. di ñaan ci réew naata yàlla yàlla defal jàmm parce que lii dafa neex xol quoi. amiin amiin. bu ko daal bul tiit bu ragal parce que on est derrière merci bro. ndax ca ndax ca tasaare. moo tax il ko ñaanal yàlla parce que lii lépp moom la daal xam nga. moo tax fi may xam mooy fan. non bu fi waay de. kuy waay jënd wàll. saa la jaay aram benn poko poko ku ma yëg jéggi kii mën na yëg jéggi poko prison yi doon uh-huh. daanam jàng nii. defal la neex bakkan laal fi nga juddoo fi hmm. nga màggee fi nga fekk baax ku am ju baax koy woy Brizo yi yow fa ngi sa ginnaaw merci Alla jërëjëf Alla jërëjëf sa diko màndi merci Alla jërëjëf Alla kontaan naa de kontaan naa bu baax baax baax merci ñu jël keneen allo allo waaw xaalis xaalis si loo ne. allo kooku. allo maa lay dégg. waaw waa xaal bu mag bi. waaw di xaal. <laughs> waaw naka mu. waaye yaa si gis de raan raan moo fi jaar raan style. boo paree nga ñëw booy laax moom. amul ragal waaw. <laughs> waaw si loolu la waaw nice waaw. naka bagage bi. sant yàlla bu baax liif. merci beaucoup waaw Pago mu lay dégg waaw. eh maa ngi lay ziar. waaw mais dina am courage rek. merci beaucoup. waaw dina wax ne bi seen lépp moom dafa xaw a moom. dëgg a xam nga gën lépp looy def boo si joxee cër rek nga ciy am ndam. dëgg la. li ngay dundee moom continuer rek nga joxe cër yaa mu gën a xam liggéey. jóg lu bari wax ji bañ a bari daal. incha allah. incha allah dina baax yàlla baax. jërëjëf kontaan naa. yàlla na yàlla jàppale. merci Khalifa Ndoye depuis nga paro merci Khalifa kontaan nañu encore une fois. Ah, ah, ah. xaal dëgg nga merci Liif jaara euh, baal ma nga téyel ma ligne bi tuuti waay euh, Paco. Mhm. Euh, ñu ngi woon si secret bi quoi pour ñu jàll foofu. waa sànq ma ngi lay nii ni donc day nekk question boo xamante ne du ma du ma xam exactement sax. réponse bi lan la. Mhm. à chaque fois day revenir ci peut nit ki à chaque fois si li nga nekk yow nekk ci rek. Mhm. maanaam buy metti wala. nga gis nit ñi di la jàppale wala nga bañ leen gis parce que début bi say say say say kese. Mhm. ak say amis d'enfance ak ñi xamante ne ñoo la sës ngay gis. dëgg la boo leen gis à chaque gën a liggéey je peux dire que tey bu yàlla defee ñu àgg si benn niveau bi liggéey mhm. kese moo ñu moo ñu moo ñu yóbbu foofu noonu. dëgg la dëgg la ak sacrifice bu rëy rëy mhm. parce que dañ ne boo bëggee dara da bàyyi dara nga jàpp si dara. dëgg la ah, je pense que liggéey kese moo peut-être tax à la base yalla moy dogal mo waral ni année bi peut être Paco Briz nit yi ko découvrir deux mille dix huit dina def li 2019 dina def li dëgg la voilà damay gis ne liggéey la ak moy yalla rek quoi mhm. Mhm. mais euh, ñu jall ci beneen étape moy euh, euh, label bi nga nek gis nañ label bu nek wala wala groupe bu nek da fay am leader tay est ce que mon nañ wax ne Paco Briz moom moy leader Djigui ray bon loolu day nekk loo xam te ne peut être je suis très mal placé ma naan maay leader bi quoi. parce que bi may ñëw peut être fekk naa fa ay ay artistes yu fa nekkoon ba pare. on peut dire que ni peut être bu ñu bëri demee ba xam Jéggi Raay man bokk naa si tax. lu leer ñu xam Jéggi Raay su ma demee ba sama morom yi wala sama morom rakk yi ñu bëri. xam mhm. Jéggi tey bokk na si sama projet. bokk na si sama ni may représenté label boobu noonu quoi. mais mhm. bon yaa am na yeneen artistes yu fa nekk peut être yàlla dafa def peut être ma la gars yi gën a ràññee. si peut être loolu mais Euh, question de leader dal dama koy baye euh, public bi ñoom ñu bi quoi voilà <laughs> dëgg la dëgg la <laughs> waaw bon bon leer na parce que dafa am ñuy poser wu question boobu quoi au fait waaw mu am sa ben son euh, y a pas photo nga ni game bi la bëgg soppi Atlanta ñëpp xam nañ ni Atlanta fa lañu créer trap music donc yow tu n'aimes pas quoi bien sûr damay def trap c'est pas vrai que ne sax bon pas pour te contredire c'est pas dit que ne sax Atlanta la ñu la ñu créé trap. Mhm. tu vois. Euh, mais fa la gën a fese quoi fa la gën a fese bokk na ah. si ñi nga xamante ne peut dañuy def trap. Mhm. dañu bëgg a soppi game bi Atlanta. Mhm. ma dikki ne leen non non damay defi. Atlanta oui rime mooy indi mot. poésie rime mooy indi mot. Atlanta Atlanta Jakarta. dans les recherche. recherche boobu noonu moo waral ne dañu bëgg a soppi game Atlanta ma dikk ne leen noonu damay defi Atlanta di gën a doo ba romb benn Jakarta tu vois rim la mais ça pas dire que ne suis suis contre la trap damay def trap son bi ma mujjee def li ma métti parce que xam nga xam nga foofu laa jëm loolu moo waral question bi parce que dama dama dégg nga wax loolu bi nga déggee game dañu bëgg a soppi Atlanta man c'est j'ai l'impression que yow tu n'aimes pas quoi ah. même y a pas photo trap la ma gis ma gis ma gis dernier son yi mu am trap effectivement am am afro trap. mosu mosu mosuma mosuma mosuma mosuma fekk nit moo tax may naa laaj loolu. voilà mosuma fekk nit si li muy nekk ma ne ko li ngay nekk baaxul. Mhm. loolu égoïsme la. wala nga am prétention bu bu bu soxor. Mhm. nit ki li muy def da nga koy bàyyi mu koy def. Mhm. mosuma fekk nit ma ne ko li ngay def baaxul kon loolu ñàkk respecté ko la. dëgg la dëgg la. trap la dañu bëgg a soppi game Atlanta ma di kenele la lolu rim moy andi mo c'est vrai voilà parfois di nga def rim andi mo ba nit yi ne da nga clash diw. erreur bi day am parfois ci yene parce que parce que bo fekk na mo bi nga soxla quoi motax nga jëli ko fofu quoi. assonance day am rim day am. ok Atlanta ne li ngay gi schéma bi di yek loolay assonance. dëgg la assonance bobu ak rim bi mo waral moy ñew musuma fekk nit si benn domaine ma ne du sa domaine. ok du ma yaayam. quand <laughs> respect si ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi def lu leen neex. voilà <laughs> mais actuellement noo gisee rap galsen actuellement financièrement je dis ndax particulièrement yow yaa ngi siy gis sa bopp quoi. waaw maa ngi sant yàlla bu baax ah. maa ngi mm-hmm. sant yàlla bu baax parce mm-hmm. que. ku dem ba génnee album wala nga dem ba di jël yenn saal yi loolu bo bo amul foo taxawee doo ko def. Mhm. donc di sant yàlla bu baax baax baax rek. dëgg la ci liñ si jot a am as tuut rek di ko suturloo. dëgg di sant yàlla bu baax baax. dëgg la dëgg la ok euh, ñoo nekk si benn moment bu bu bu bu xaw a yéeme sax muy euh, fi ñu toll nii muy Covid 19 bi coronavirus bi comme ni ko ñëw xamee euh, tey yow boo doon def sensibilisation lan ngay wax le monde entier particulièrement waa Yoff waaw daanaka loolu dama si dama si sawar a tontu trop parce que man à chaque fois bu ñu toogee néeg ba fële néegu Moussa di ci débat am ak yi ñoom koos ak gars yëpp. Mhm. à chaque fois weerante lay indiwaat. Mhm. dañuy toog à chaque fois di di di surfer di xool nombre de cas yi. Mhm. ñuy xool à nombre de décès yi propagation bi ni mu gaawee. mais booy amee seetlu gu ndaw day mel ni sénégalais yi dañ ko jël à la légère. très bizarre c'est très très très dangereux. nekkul ay faux. Mm-hmm. dëgg la te mu ngi rey ay nit yu bari. billaahi tey rek si 24 heures je pense que rey na 800 personnes si Italie. xoolal loola. Euh, tey ñu ngi masawu Abdoulaye Diouf Sarr parce que gis nañ ne mu ngi si sonn trop. Mm-hmm. mission bi mu ngi koy mënee nice. dëgg la voilà di lancer appel ñëpp ñi nga xamante ne ay sénégalais lañ plus particulièrement waa Yoff. Mm-hmm. ñu suivre consigne ministre de la santé muy Abdoulaye Diouf Sarr si consigne yi. comme tey nañ joxe exemple si gel yi nga xamante ne nii tey. ku nekk war nga nga boo demee liggéey boo ñëwee balaa ngay joxe loxo. Mhm. nga raxasu sa loxo yi ba mu set boo amul saabu nga du moins boo amul gel nga utiliser saabu. Mhm. ñu éviter di joxante loxo yi parce que sénégalais dafa bëgg a saafonte trop tey fi tey boo rombee benn nit bu la joxee loxo nga ne ko non merci rek. mën na la si mere ba corona bi jàll. dëgg la mu ne la biñ fi affaire bi ñëwee jox naa la loxo. <laughs> kon téyal sa loxo. sañ nañ ko de xam naa sénégalais yi. donc il faut ñu jël suñuy matuwaay. quarantaine mhm. bi nit yi ñun chiffres yi nga xamante ne moo fi nek di génn. Mhm. tay je pense suma ma ñu ngi ci suñu 51e cas. Mhm. positif si donc lool jar na nit yi tiit li ma gën a constaté mooy Sénégal bala ñuy tit di jël mhm. affaire bi au sérieux il suffit kenn ñu né dee na ci. te ñaanuma yàlla kenn kenn kenn ñàkk si bakkanam. mais c'est la triste réalité tay ji wa italy boy seet sen première semaine deuxième semaine chiffres yi ñoo ko xawoon ay ben kangaron dégg. 9 cas 2 jours 3 cas tay ñu ngi ci ay 1000 et quelques cas mille sax et quelques décès donc bëgguma Sénégal ak foofu. Mhm, gars yi nañ ko jël au sérieux mhm. ñu topp consignes yi nga xamante ne nii tey ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moo ko joxe. Mhm. ñu ñu toog suñu kër yi bu fekkente ne mënuñu ko aussi ñu éviter mesure de prévention yi ñu raxas suñu loxo yi. éviter yenn regroupement yi comme tere nañ yenn regroupement yi ba pare. tere nañ appel bi tere nañ yenn regroupement yi julli ajuma yi donc nit ñi war nañ xam ne c' est pas c' est pas des blagues c' est pas des c' est du ne très sérieux même masul am si àdduna masul am si ay tere ay ay ay ay juma donc gars yi sama mbokku yoofu yëpp yëpp comme mm. ñu ngi yoofu donc dama leen di ñaan rek ku si nekk fi nga nekk na nga ko waxtaanee parce que boo ko dul waxtaanee ignorance lay indi. ignorance lay indi voilà man à chaque fi ma nekk gars yi duñ ma bàyyi ma ma ma terminer. Mhm. duñ ma bàyyi ma wax lu dul dëgg. Mhm. mun ma toog une te du ma ne booy yéen a ngi dégg dégg naa fii amaan nañ kaa booy gars yi nañ moytu nangam nangam. c'est vrai il faut ñu si communiquer. di mhm. xool information bi fi mu nekk ñu koy jëli. di xam ce qui se passe ñu moytu bu baax a baax ñaanu ma ñaanuma yàlla nag yoof am ay cas. bu ma sañoon Sénégal gépp ñëpp dañuy épargne ñëwu ci affaire bi. mais à nous tey ñoo mën a xeex ba loolu noonu tey fi tey tey mu jóge fi ñu éviter yenn regroupement yi éviter yenn intox yi. yi nga xamante ne nii gars yi dañuy wax lu amul. di éviter fausse information yi que ne coronavirus du laal noir température bi day lii bool naa ne laay xaw ma ay mooy laaj da koy faj. si bëru la grippe la c'est très sérieux nag gars yi sérieux ñu éviter. donc di lancer message bobu di ñaan suñu chef religieux yi ñi nga xamantene ne ñoo fi nek mm-hmm. xam-xam bari na yof trop nañu ñaanal bu baax baax baax mm-hmm. te xam ne seen doom yi nañ trop tay tey bu ñu demee ba tej école yi arrêté yeen regroupement rek c'est du sérieux mm-hmm. voilà bala la bo xamantene yalla ko fi waccel légui yalla mom mu nañ ko ñaan kessi mom mu bala dara xew liñ nan dimbal da ciy fekk loxoy borom borom ñun ñi ñoy borom corona bi ñun lay dal yalla mo ko fi indi mais nañ ko ñaan mom mu fi di éviter aussi yenn regroupement yi comme ni ma ko waxee balaa muy doon répétition. Mhm. voilà loolu woon messages bi quoi. waaw euh, Rési ñu ngi ñaan euh, nga préparer ñu euh, benn clip rek pour ñu mën a terminer suñu émission bu baaxee après Pago tey fi mu nekk nii lan mooy sa sa ay projet bon actuellement ñu ngi si album bi di ko job daanaka album bi pare na sax je peux mhm. dire. pour ne pas dire que léegi mu génn album bu pare ça pas dire que rek day génn artiste yi xam nañ li may wax man nga pare album séance d'écoute am nga amaat loo si war a defaraat nga defaraat ko à chaque mhm. fois ñu ngi si di job di job di job à mhm. un moment donné bëgg naa def album boo xamante ne nii du yam fii kese quoi parce que bëgguma mu nekk éternelle répétition même bu album bi paree sax te amuñu élément yi war pour mu génn si biti mhm. duñ ko génnee mais n'empêche dinañ génnee ay affaire yu fi nekk dinañ okay. may gaay soit ay plateforme yo xamantene dinañ fa mëna déglu suñu son yi okay. soit ñu may ay lodo son mm. mais album la bu génné album ku wax album ne liggéey la laaj ku wax album ne laaj na ay moyen, mm -hmm. ku wax album gis ne album national mhm. war nañ ko wéssu tax beut bi du fi yépp donc war nañ mëna génné ay album yu international dem vers l'extérieur mhm. def ay showcase mhm. ay featuring pourquoi pas ñi ci biti pour man bi fa la nek té ñu ngi ci liggéey ñi leen ñaan ngeen ñaanal ñu bu baax mm -hmm. Euh, pour les bi àggu foofu parce que bu demee bu àggu foofu je pense que Yoff moo siy gagné fierté Yoff lay nek comme tey ñun reyante nañ ba Sénégal gépp xam Yoff si domaine bin nek moi culture urbaine lu donc il est temps à bi yëpp xam yoff te c'est ñaan yi mën nañu fa yóbbu donc ñu ngi tàllal loxo di ñaan ngeen ñaanal ñu bu baax baax baax si suñu projet yi mu mën si ñu mën ko réussir si ni ñu ko bëgg a inshallah inshallah allah allah bu baaxee nga may ñu benen clip покажа дясна, не пучо Не пучо, покажа дясна, не пучо what the you will breathe, huh? Say my name, Paco please Say my name, say my name, please breathe, huh? Nека хаума, wonder nigga mad Яру сани, bigger manga girl seen carrière kese laa doon bañ dafa fekk ma am lu may seet rek sinon naa leen a rey raay li woon daaw du doon ren noono du tekkee koon bi yoon dafa romb soraat non samay noon xol yu bon nara tuxe bon kon sama yoon nekkatul ci samay noon damay non suma leen di tere nelaw dem leen naa ni somnifère покажа дясна, ням печо Ням печо, покажа дясна, ням печо Фебу фама, нека нага чо Трябва нега пако, мъги, what the you'll breathe, huh? Legacy, legacy Say please Legacy, legacy Say my name, say my name, please, please, huh? Please, never Love, never Beef, so boogie, man, tama lay beef baby. You done con nigga. That you real nigga. Mono lin you round nigga. Hoe my talk hoe laag, kill like that rauw nigga. Toen jou nu denk gun gun, MC ik al boy. Man, man, serik kata re. Dama am blim, dat en dama is toch in zijn in laaf. Dol en ritje naar en toch in mini jokke ginaar. Chip chip. Nee, nee, pak op prijs daarvoor ai. Rumble some my enemies, rellen, rellen, bye bye. See you later, popular and bye. I'm a gang bang bang bang. I will get a dance and up with you. And up with you, will get a dance and up with you. That will follow a nigga nugget you. That will let it bubble buggy. What the you'll please. huh? Jagged. Jagged. Jagacy, say my name. Back up, please. Jagacy, Jagacy. 77 717 23 59 pour ku bëgg euh, wax nga ma sa ay projet New York City dañu am euh, concept suñu concept euh, musique et éducation parce que pardon ñu jël ki ligne bi Allô Allô, oui. oui. Wow. naka la baax mi baax. waaw naa yees alhamdulilah. fii la ëppee yow. Ah, di kontaan si émission jaajëf. Ah, parce que borom baax nga yow ah, bi waaw waaw ñu ngi si kawam rek ñu ngi góorgóorlu. waaw ñu ngi nekk ci yow bu baax baax a baax. oui kontaan bu baax. waaw yal na yàlla seet doole. amiin waay. waaw yàlla jàmm seet. amiin bro amiin kontaan naa trop. waaw bëgg fi la ëppee yow aussi. fii la ëppee merci beaucoup. waa Pago maa ngi doon wax ne rek euh, ñun suñu concept euh, waa New York City vu que dañuy bokk si partenaires yi. émission bi euh, mooy musique et éducation tey gis nañu yow da nga jàng ba am ba kam nga ba tey terewul yaa ngoon si rab bi quoi ban message ngay jàllee jàllale xale yi nga xam te ne ñoo nekk si Yoff te te te bëgg rab game quoi. waaw bon je pense que euh, question bi day ñëwaat sànq rek ci mm-hmm. peut-être li ma laajoon. pardon ñu jël ki si ligne bi mm, allo d'accord. allo allo. waa DJ maa kooku. Hey, Mr. Joe. Oui. Naka mo? Ah, ça va très bien. Mais content naa trop. Philippe Grand. yow initiative é bi nga def nii dafa rafet. ok merci. waaw donc vraiment é maa é ngi lay encouragé. merci beaucoup. di wax aussi liggéey bu am solo ngay liggéey. di wax aussi sa invité bi Paco Pris. moom defe naa dëgg la. mais quand même. ndiir ndeg la ndiir ndeg la dëgg la. ku joxe cër la et puis ku bëgg aussi li muy def la. donc eh, man dama koy encourager. merci. di ko wax aussi li muy def di yëkkati drapeau Yoff di ko wane ci àdduna bi loolu dafa am solo trop parce que man combattant wu yos la bu ma gisee kuy euh, xëccul yos di ñettee pour ñu xam yos mhm. là man dama lay encourager toujours merci beaucoup et aussi di la wax aussi actuellement ni il faut nga jéem a jegeen sodaab mhm. pour protéger say œuvre pour ëllëg moo tax

te bañ def aussi artiste parce que dañu suñu à l'extérieur mm-hmm. perte musique mm-hmm. aussi euh, euh, ak ñi nga lañu ñoo leen mm-hmm. tu es jeune l'avenir est devant toi donc man nga chaque instant saa yoo bëggee voyagé nga voyagé parce que sa étiquette may na la ko mm-hmm. Mm-hmm. donc lu bari mu ngi ci yow lu am li am na aussi lu bari loo xamante ne lii mu ngi nelaw ci yow te génnagul mm-hmm. bon il faut penser toujours à ça quoi bëgguma tëye antenne bi mais xam naa euh, nañ ci gën a waxtaan daal am na solo grand bi merci beaucoup merci beaucoup am na solo jërëjëf grandir am na solo trop jërëjëf ok grand. merci grand waaw Paco waaw. Ah, waaw bu ñu ne woon sax. Euh, si sa message si booy quoi. Ah, ah, waaw waaw si ak jàng beeg affaire bi. quoi euh, waaw mooy comme sànq rek li ma doon ñaax booy yëpp. Mm-hmm. comme par exemple booy yi nga xam te ne ñu ngi ci domaine urbain bi muy musique bi. Mm-hmm. pas rap kese peut-être mbalax ak ñëpp ñi nga xam te ne mm-hmm. yoo fa la ñuy yëngu si côté artiste. donc di leen wax ne étude yi am na si solo trop trop trop. waaw. peut-être yenn saay du ñëpp la yàlla di may ñu nekk ci bangu école yi mhm. am na ñu ko bëgg trop te jànguñu mais ñi ñi nga xam te ne jànguñu aussi si liñ jàpp mhm. buñ ko mës a bàyyi nañ ci jàpp mhm. boole koog passion bi nga xam te ne moom mooy musique ah defe naa loolu laa joxe woon je pense que day rejoindre ci si question bi waaw sànq quoi ok allo allo oui Didier Lang waaw Kebson eh Kebson no delloo ziar Kebson yooyu di di nuyu sa invité waaw Paco waaw. Kebson sama grand frère la waaw. dëgg la. foofu mu waay génn mhm. dëgg la allo. allo ñu ngi dégg lay dégg. oui. sur le plan international. xam nga dafa am ay musiciens yu fi jaar yoo xamante ne dañ leen xam sur le plan international. si. Euh, ci wàllu rap. xam nga sànq maa ngi dégg muy wax ne mu amee bac. waaw. di expliqué jaar jaaram. xam nga le groupe Daara ji. waaw. je pense que bi ñu leen di xam c'était des lycéens. c'est vrai. donc yàlla def na.

sur le plan musical si mon ami est ay anciens la développé une musique. c'est vrai. Ah mais dafa am loo xamante ne lii ko sur le mhm. plan musical surtout si wàllu rap bi rap def ñoom. n'est-ce c'est vrai. donc la question que je lui ai posée. Uh-huh. moi, est-ce que sur le plan international. Uh-huh. foofu a Un groupe daara et PBS à l'époque. Uh-huh. bon xam nañ leen fa. parce que ñoom bien sûr loolu lañ leen di ñaanal. lu leer incha allah. parce que suñuy jarbaat lañu suñuy doom lañu. dëgg la. nga donc foofu ñooñu teg seen tànk ba tey ñu egg fa ñu xam leen ci wàllu àdduna bi yëpp. Mhm. ñoom ñii loolu liggéey la. Mhm. Mhm. te dafa doon liggéey peut-être yombul. yombul waaw. nest dëgg la. donc euh, est ce que réellement ñoom teg nañ foofu seen tànk pour liggéey liggéey bu tax. pour egg foofu quoi international. Mhm. bon vraiment ñu xam leen. dëgg la waaw. Mhm. waaw Paco tontu si question boobu. c' est pas facile ah n' est ce pas. yombul waaw yombul mhm. mais actuellement ñu ngi si ñu ngi si jéem a ut ay éléments yi nga ne nii dinañu permettre tey ñu àgg ñu àgg si niveau boobu. Euh, sànq ñu ngi may laaj si ci album bi ma nekk doon doon préparé. waaw maa ngi tontu DJ ne ko ñu ngi si liggéey bu baax a baax. mais mhm. ça veut pas dañ koy liggéey ba mu pare rek ñu maye ko wala ñu génnee ko jaay ko. am na fu ñu mhm. teg suñu bët muy fi nga ñuy ñaanal nii pour ñu àgg fa. Mhm. incha allah te ñu ngi siy liggéey ak ay nit yi nga xamante ne nii ñoom ñu ngi foofu sur place. ok di ñu utal ay ay link. yoo xamante ne nii incha allah bëgguma teel a wax moo tax parce que. dëgg la dara nañ nañ ñu ñaanal rek te mm-hmm. déglu nañ conseil bu baax a baax baax. Mm-hmm. am na fu ñu teg suñu bët te objectif boobu noonu incha allah dinañ ko atteindre te niveau international boobu noonu muy souligner. Mm-hmm. mooy suñu rêve te actuellement te bëgg nañ ko réaliser incha allah. dëgg la incha allah. waaw de toute façon comme comme lu ma la wax rek. xam nga ñun yéen suñuy jarbaat ngeen. suñuy doom te vraiment honneur la ngeen bu ñu déggee sur le plan international vraiment yéen a ngi yéen a def foofu si wàllu woowu.

nga nuyu ma mère Fassi mère Fassi Touré star bi <laughs> ne ko maa ngi koy bëgg bu wér nuyul ma xujjee Kébé ñoom ñëpp Ndeye Mariam Sarr ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax waaw Pago euh, yaakaar naa foofu tontu nga foofu pare ko mm-hmm. mais man maa la invité mais di nga ma may rek quoi man nga ma loolu. ma am lu mu wax si affaire euh, Covid 19 bi corona bi. bien sûr parce que man j'ai l'impression que ne euh, sénégalais yi comprendre ñu quoi comprendre ce qui se passe. parce que. man li ma jàpp mooy ñoom dañu jàpp ni actuellement nii ñi wax ne ñoo positif rek ñoo feebar. Mm-hmm, loolu lañ jàpp loolu lañ jàpp. Mm-hmm. vu que ni euh, ñii positif affaire bi dañ ne la boo amee nit ak nit contact man na def deux semaines voire un mois pour mën na révéler wu. effectivement léegi xoolal cinquante deux yi positif noonu yëpp. kan ak mm. kan ak kan ak kan la ñu la ñu taseel. ñooñ ñu ngi circuler si dëkk bi. te li si li si gën a doy waar sax. tey mhm. dafa am benn benn benn information bu Abdoulaye Diouf Sarr joxe mooy ministre de la santé. Mhm. bu bu tiital ñëpp. Mhm. ba si moom booy seet tey bi muy def déclaration am dafa sol masque. lu leer donc c' juste benn benn alerte. pour wax gars yi que ne l'heure est grave. am na trois cas yi nga xamante ne cas communautaire la. waaw cas communautaire pour ñi nga xamante ne xamuñu ko mooy. Euh, ñi nga xamante ne tey ay étranger lañ. ñi nga mhm. xamante ne ay porteurs lañ ñu jugee à l'étranger indi indi coronavirus bi tey. Mhm. ñi nga xamante ne ni ñoom lañ ko wàll ñooñu la ñuy woowee cas contact. Mhm. cas contact yi mooy ñi nga xamante ne tey man ma jógee Espagne ñëw wàllu ko sama jabar. wàllu ko samay doom ñooñu environnement boobu yëpp dañ leen di quarantaine. tey fi tey man mii ko jëlee Espagne indi ko. wax naax benn naata dinañ ma laaj tey question ne ma ma dem naa fii dem naa fii dem mm-hmm. képp ku ma amaloon contact dañ koy mm-hmm. surveiller. dëgg la mettre ko en quarantaine bu ñu gisul symptômes yooyu si moom ñu libéré ko. Mm-hmm. dëgg la bu ñu jëlee ADN am jël test yi ñu xool positif yi ñu ñu yóbbu ko. yóbbu ko ci nga xamante ne am nañ maladie bi. mais tey dañ déclaré trois cas yi nga xamante ne dafa communautaire. communautaire cas communautaire mooy xamuñu kan moo leen wàllu jàngoro bi. dëgg la donc l'heure est grave ça veut dire nekk yow ci ñi nga nekkal. Mhm. mën na nekk tey marché bi ngay dem mhm. mën a nekk plage bi ngay dem parce que am na ñoo xamante ne ay porteur lañ wàll nañ ko ay nit ba ni ni ñu ko wàll jël nañ leen ñu positif mais xamuñu kan moo leen wàllu te tey je pense que si discours Abdoulaye tey loolu moom mooy li nga xamante ne mooy souci majeur bi am na ñoo xamante ne am na ñuñ ko wàll te xamuñu origine wàll bi am na ñooñu tey ñoom ñu ngi circuler si si Sénégal di ko wàll ay nit foofu laa toll woon donc loolu moo gën a tiital ñëpp foofu laa jël suñuy précaution bi mooy problème bi mooy actuellement ni ñun population bi dañu war a toog seen kër parce que xam nga la moo tax. bilaay ñii positif noonu am nañ ay dizaine de personnes ñoo xam ne contacté nañu ak ñoom. effectivement am nañu ak ñoom contact te ñu ngi circuler si dëkk bi. doo xam fan ngay tasee ñoom. doo xam fan ngay bokk ñoom oto. mooy li nga wax rek xam nga <clears throat> boo xoolee actualité boo koy suivre mooy sànq maa ngi souligner ma ne yi. ak italien mhm. yi ñuy déclaré foofu ay minorité lay nekk neuf cas mais biñ demee ba tey bañ ne tey am nañ neuf cas dont mm. trois yoo xamante ne communautaire. Mm-hmm. loolu mooy tiital ñëpp. parce que loolu depuis bi mu commencé Europe si la affaire bi tas. c'est vrai da ngay boobu noonu xëy na. Mm-hmm. tey jàpp nañ ne kooku am na ko si trois yooyu de. Mm-hmm. mais porteur bi animaux ki nga xamante ne porteur mooy ki ko ko wàllu moom. du mom dafa ñëw rek am ko nii de am na ko ko transmettre parce que génnul si territoire bi ñooñu ay sénégalais lam daa lañ génnuñu fenn mhm. xëy na nii dem am malaise ñu nekk da nga am coronavirus ana ki mhm. ko ko wàll c'est à dire kooku muy contaminer ñeneen donc gars yi ñu ñu ñu xam ne l'heure est grave non dañuy ubbi suñu bët ñi ñu topp ko waaw xam ne yegsi na quoi dañuy ubbi suñu ñaan yàlla mu musal ñu si kese moo des mais non gi nga pako li gars yi wax ku amul soxla boo xam te nii dafa dafa urgent de trop de trop na nga toog sa kër parce que am nañ yàlla na fi yem mais am na ñeneen ñu feebar ñuy dox parce que ñii positif noonu am na ñu nekkaloon en contact. vraiment vraiment tey fi ñu egsi nii bon kenn ñaanul woon ñu egsi fi ñu ngi leen doon neutraliser pour xam cercle bi nga xamante ne fa la feebar bi nekk tey cercle bi feebar bi nekk mooy nit ki nga xamante ne mooy élément porteur bi ki ko fa mhm. indi mhm. dinañ xam contact bi taximan bi mu jëloon jour temps mhm. mu communiqué ñu ñu xool ko ku mu nekk ñu xëcc ko quarantaine ko taximan boobu ñi mu yeboon ñu quarantaine leen jabaram doomam 15 jours bu si kenn amul symptôme ñu libérer leen. Mhm. tay fi tay ñi nga quarantaine noonu di xool ay symptôme ak yooyu du si foofu la trois yooyu génnee mhm. feneen lañ génnee te xamuñu ku leen ko jox. génnuñu Sénégal voyagé wuñu. Mhm. am nañ ko donc loolu mooy ay cas commune te loolu catastrophe la nar a jur donc nañ ñaan yàlla rek. nit ñi ku nekk respecter say say say affaire yi nga xam te ne moom lañ joxe si consigne yi. di masawaat Abdoulaye Diouf Sarr à chaque fois man bu may xool mu joxe discours sama yaram day daw. parce que frère la yoof la dëkk te tey. donc ministère bi mu nekk tey am na benn benn tiis bu garaaw bu ñëw si moom. tey daanaka tey lay soog a am liggéey. na charge quoi. voilà donc di ko masawu di ko wax ne ñun ñëpp ñu ngi si gannaawam. donc Yoff booloo nañ. Sénégal yëpp war a booloo nekk si gannaawam. c'est vrai jàppale ko ci liggéeyam. dëgg la deuxième point yi mooy Paco horaire bi nekk fii di dem Touba Dakar Dakar Touba na ma waa Touba yi baal quoi dëgg la feebar bi. foofu la foofu foofu la njëkk a amee Sénégal dëgg la wala dëgg. dëgg la horaire bi Yoff lay déparé mais ñi nga xam te ne ñoom ñoo ŋànk dëkk bi muy frais yoof ak euh, maire Yoff ak ñeen ak ñeneen ñi nga xam ne am nañ baat si Yoff mais ngir yàlla nañu jóg si loolu ñu arrêté horaire bi parce que tamit xoolal euh, euh, déposé wul waa Yoff rek de du du du waa Yoff rek ñoo am risque pour am affaire de car bi ñi siy yéeg di dem Touba. ñii si jóge Touba di ñëwaat Dakar ñëpp fi ñu toll nii dañu si ngandi risque la ñuy doxee. lu leer nga wax donc euh, horaire bi noo dañu war a ubbi suñuy bët ñu arrêté ko par force. parce que tamit risque la. xam nga négociation. Hmm. jarul tamit xam nga ay bakken quoi. parce que feebar bi. effectivement dafa garaaw quoi dafa garaaw. xam nga xam nga li ngay wax nii fan fan fan lay fan lay yegsee. Hmm. bu bu bu cas force majeure amé moy catastrophe bu amé bu panique am. Mhm. ba ku nek tok fi muy tok ba état mhm. joxé que ni ben auto du dawati. si ben transport en commun du dawati. Mhm. dañuy tej école déjà tej nañ ko ba paré sax. dañuy regroupement yi dèjà def nañ ko ba paré manam liggéey amatul. comme Europe fiñ ñu tay ñun buñ ñu ba toll fa. si lañuy soga mëna wax que ni car bobu ngay wax ni du mëna a départ. parce que tay fi tay yow boo demoon ne da nga koy arrêté coow lu rëy la indi parce que day liggéey. mais dafa wara a arrêté. war arrêté effectivement warna na arrêté mais. li si li si war moy prudence. Mm-hmm. prudence ak li nga xamantene ni mom moy ñu top consigne nañ ko def loolu mm-hmm. peut être mën nañu sauver si benn moment ci si maladie bi mais pour arrêter lool non lool si si si uh-huh. du yomb dal du yomb mais si état lay dépendre pour mu uh-huh. joxe ordre arrêter lepp ñu xamantene dañuy yëngu téré genn bi té ragal na ragal na ragal na buñ sa gané tuti dañ ag ci phase bobu non fa lañ jëm parce que phase boobu buñ fa agé moy Sénégal day uh-huh. stand by kenn du génnati ran style ma lay wax duñ def dara ñu tok seen kër yi ran bi ma lay wax ran mm-hmm. tey daf ne ma euh, pour ma gaawantu ut ku ma yónni wala mu wax mu wax ma fa ma wax ko fan laa nekk mu yónni ma affaire parce que dafa war a dem Sandaga parce que dañ ko dañ ne ko lundi marché yi dañu war a tëj. voilà donc xam nga ñu ngi ñëw. waaw bu ñu demee bay tëj marché yi. waaw te ndeysaan bu may xool suñu situation ñu Sénégal. Mm. xam nga yemuñu ak Europe. Mhm. Europe select yi seen lépp jeex na seen stock yëpp jeex famille yi daw nañ jënd seen lépp tëj ko boo fa demee day vide mhm. tey ñun suñu select yi am na xamante ne amuñu moyen dugg fa dëgg la am na ñoo xamante ne quotidiennement la ñuy dund tey sa yaay day yeew dem marché dem géej dem jëndi ceeb am na ñoo xamante ne si taalibe la ñuy jëndee ceeb du coup buñ bloqué la boutique yëpp tëj lay ñun ak ñooñu naka la ñuy def pour bàyyi xel aussi taalibe yi nga xamante ne tey ñu ngi si mbedd yi mhm. Euh, population bi kese mais fàtte nañ suñu doom yi nga xamante ne tey ñu ngi ci mbedd bi. si gis nga ñun ñëpp bu demee en quarantaine par exemple ñu tëju. peut-être mm-hmm. ñi nga xamante ne yàlla may na leen sutura seen kër yi am lu ñu dundee. Mm-hmm. yow doo tijjil kenn ku yelwaan nga koy sarax parce que da nga ne maladie bi ngay daw. taalibe yi anak leen di jox ñu lekk donc di mm-hmm. lancer appel ci ñi nga xamante ne tey fi tey yàlla may na leen ñu yor. ñu geesu suñu suñu suñu suñu doom yooyu noonu. xool naka la ñuy jëlee ay mesures ñoom parce que c'est très critique. am na solo c'est très ñu ngi xalaat suñu bopp di tëj suñu bopp quarantaine mais ñooñu buñ quarantaine fu ñu jëlee luñ lekk non dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la am nga fay mi nekk ni li ngay wax ni ñu ngi jëm ci ba ku génne euh, nguur gi jëflante ak yow parce que tey Italie Espagne toll nañ si boo génnee buñ la jàppee te te du ay raison yoo xam te nii yu yu leer la dañ lay tëj 6 mois ba pare allemagne la xaalis ñoom toll nañ foofu maa dégg sax Poutine mu ne euh, am na lu muy demee day génn ay 78 tigre xaw ma si mbedd meeg affaire demee noonu. xam nga mais loolu ma la woon dafa série koo koo xam benn président bu génnee menace na day génne 78 tigre si mbedd mi pour ku génn di moom yoonam nekku si nga xam ne garaaw na donc nañu toog suñu kër quoi. toog suñu kër yi. loolu day dépendre si si si ordre. xam nga sénégalais moom dafa bëgg regroupement dafa bëgg naanu café naan ataaya. kambis loolu si mhm. suñu deret la bokk te lii du pour sincèrement parler feebar bi. Mhm. bokkul situation ak Afrique. mënuñu ko téye parce que ñun ni ñuy vivre ni ñuy vivre suñu société. c'est impossible bu fi affaire bi toxee kese. Mhm. accélération bi muy def ci Europe dina multiplier wu. parce que suñu lay gën a gaaw. tubaab bi amuñu culture toogantu ni ci mbedd yi di taxaw ci ay atelier di toog di ataaya wala yooyu ku ci nekk da ngay tal sa bopp. Mhm. transport en commun sax ñi ngay jël bariwul ku ci nekk yaa ngi ak sa oto. malgré ça y a des milliers de morts. t'imagine mhm. bu ñëwee ci suñu société ñun ci suñu village yi. ñun ñëpp far koo fi jox loxo ne ko corona sax mu mere la ma la ko ñaan yàlla rek ñu bañ a àgg foofu mais c'est très très très grave instant bi jar na tiit te di woo ñi nga te ne mooy suñu parents yi mhm. ku si nekk na nga sensibiliser say doom parce que waxtaan bi am na solo bu liggéey wàcc rek ñëw toog mhm. toog si nga waxtaan seeg ñoom taalal télé nga xool actualité luy xew wax leen ce qui se passe dajale leen nga ne leen lii la ku jën génn ci biti balaa nga dugg raxasal sa loxo sensibiliser sensibiliser je pense que si biir kër yi lay jëkkee avant si biti mhm. doy na waar daal dëgg la dëgg la mu ngi noonu donc euh, ñoo ko déggandoo ngir yàlla di leen di ñaan euh, yéen da ngeen seer si ñun quoi xam nga da ngeen seer si ñun bëgguñu kenn am lu ko métti bëgguñu kenn am lu ko dal balaa ñu kenn di ñu imposer confinement ñun nañ confiner suñu bopp ba pare toog bu ñu amul soxla boo xam te ni bu urgent la ñu toog suñuy kër mu jeex tak Sénégal jëm kanam loolu mu fi des. waaw mu ngi noonu Paco sa sa mot de fin. waaw di wax gaay rek ne Euh, à chaque fois que je remercie Yoff mhm. je pense que chaque jour mon mot de la fin de mon Yoff TV je pense que c'est mon mot de la fin bu éternel vie. parce que je fay Yoff mhm. kenn gis gis bi gis di remercier sama papa sama yaay sama tànn samay bàjjen ñi nga xamante ne sama mbokk yëpp fu ñu nekk di seetaan. Mhm. parce que lii dafa neex ngay def benn affaire sa parents yi di si def seen xaalis. dëgg la pour nga réussir. Mhm. di si def seen xaalis pour nga réussir donc mhm. sa papa wala sa yaay dem ba yéegi xaalis di la jox. pour nga def benn affaire pour affaire rafet donc. je pense que njort bu barkeel kese lañ si mën di remercier encore une fois Yoff TV. di la remercier ñu ngi doon seetaan. Euh, ñu fagaru bu baax ci feebar bi nga xamante ne nii yegg si na fi tey. Mhm. parce que nekkatul ay caaxaan daanaka sénégalais dafa bëri ay laisser-aller comme ni ñu ko yàlla mooñalee. parce que ñun ñëppay saafante. Mhm. koo si gis sa bopp rek dangay gis sa morom ni li ko dal waru mën a dal te am nañ yërmande mais y a trop de laisser-aller comédie bi bari na si intox yi muy information yi baaxul bari na si.

lal bari bariwul ñi nga xamantene mën nañ accueillir maladie yi nga xamantene ni dafa infectieux ya. mhm. lal yi ñu bari bariwul tay fi tay fan ñu ngi quarantaine ay gaay tay fi tay buñu ñu demee ba suñu cas bari catastrophe mooy am parce que dañ lay tëral ne di la calmer bu heure day ñëw ma ngi seetaan tey benn infirmier bu nekk Italie mu ne ñoom mhm. à chaque fois bu ñu amee patient réanimation dafa am choix bu ñuy def tey bu 10 patients ñëwee dañuy choisir kenn pour mu dund te ñoom ñoo ñu ëpp fuuf comme kon ñun war nañ xoolaat suñu bopp mm-hmm. nañ éviter affaire bi àgg si yenn nombre yi parce que mm-hmm. bu àggee si yenn nombre yi hôpital yi mën a accueillir maladie duñ leen mën a faj donc di nga gis ku ñëw ne am na corona mm-hmm. ñoom ils sont conscients que duñ ko mën a faj parce que amatuñu lal ñu ko teg dañ koy teg noonu rek ba yàlla ñëw donc nañ ñaan yàlla rek affaire boobu bañ a yegg si di remercier mu ngi noonu euh, seen émission jotaay hip hop la woon présenté par votre ami euh, DJ Nata euh, di fàttali ne suñu partenaire leader Jifa Universal Production la ak euh, Mr Rangstyle euh, New York City encore une fois merci à tous merci beaucoup jaajëf Paco. jërëjëf merci beaucoup. thank you man.